benn xale bu tuuti moo ko daj bu tuuti boo xam dañ ko tëbal na ko ubbil. maa ngi koy naqarlu. ñu ngi ñaan yàlla mu yem fi tamit ndax Sénégal toll na instant bi foo xamante ne nii xel yi dalatul. des pères de famille au chômage et ça ça ouvre la porte a toutes sortes de choses. au fond de notre cœur tout le monde souffre au Sénégal njàkkare ak tiis depuis jeudi ba léegi ginnaaw verdict bi nga xam ne. moo jot a wàcc fële nga xam ne mooy tribunal bu Ndakaaru si diggante ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr ak Ousmane Sonko tey dans la banlieue dakaroise dans la centre ville ñëpp di manifesté wu ginnaaw li nga xam ne ñu ngi koy njort si candidature Ousmane Sonko bu élection 2024 Auchan yu ñu yàq banque yu ñu taal berte buñ touché wala sax ay nit yi nga xam ne tey ñàkk nañ seen bakkan policier gendarme journaliste avocat nous tous nous sommes des responsables en tout cas ñi nga xam ne tey ñoo jiite ñi nga xam ne mooy réew mi di leen wax que le suuf souffre que ñëpp ñi ngi ak ndax njàkkare ak tiis ñu bàyyi ngeen xool li nga xam ne moom mooy les images rawatina fi nga xam ne mooy Asilem Grand Yoff si Auchan bi. mbir yaa ngi nii fii nga xam ne mooy Auchan Boss nekk fi xam moom moo si diwaan Asilem Grand Yoff ginnaaw bañ ko saccagé démb ak manifestation yi nga xam ne am entre ndaw ñeeg ñi nga xam ne moom mooy euh, gendarmerie yéen a ngi gis. bëggoon ñëw woon leen li nga xam ne moom mooy bi gannaaw fi nga xam ne moom mooy Scat Urbam Auchan yi nga xam ne demoon nañ fa sànq ñu ngi fii nii nga xam ne tey moom mooy Grand Yoff pour vous montrer également ba léegi euh, dans le film bi nga xam ne tey ñu ngi koy def par rapport ak manifestation yi nga xam ne xewoon na si alxames bi ak ajuma bi yéen gis dégâts yi fii nii en ce moment bi si boobam dañ ko baare euh, yéen a gis démb xawoon na euh, taxar naa si ginnaaw manifestation yi nga xam ne amoon na si diggante ndaw ñeeg li nga xam ne mooy les forces de défense et de sécurité laataaw sax bëggoon attaque li nga xam ne moom mooy euh, euh, commissariat bu Grand Yoff mais ginnaaw boobu la renfort ñëw vous avez vu bi le trafic c'est très difficile en ce moment pour nga gis ne oto yi sax pour ñu jàll dañuy euh, wengalu sax walla sax ñu jéem a aw si si benn côté bi yéen a ngi gis tamit au fond fële benn waa ji ñuy woowee Ino moom Ino lañ koy woowee mais mu ngi jéem a jël xeer yi moom kese en ce moom rek moo fi moo fi nekk nii di di jéem a dund li nga xam ne moom mooy dégâts yi mu doon parmi les conséquences yi nga xam ne démb euh, dund nañu ko si ajuma bi euh, si banlieue bu Dakar roog centre ville beeg lu nu mel fii si gannaaw la situation comme ça situation bi nii la nii la demee laata pneu yi nga xam ne jot nañ ko taal ak mbalit yi nga xam ne sànq gis nañ ko su ko marché bi muy euh, doon njeexitalu li nga xam ne moom la ñu bëri di di di doon njortu pour si si réew mi ginaaw ginnaaw procès verdict bu Ousmane Sonko ak nga xam ne moom mooy euh, Adji Sarr dañuy avancer rek wan leen li nga xam ne moom mooy euh, xeer yeeg lu xeer yi yéen gis xeeru pavé yi ak euh, tamit mbalin mi nga xam ne mu ngi si tëli yi nga xam ne tey moom mooy taximaan yi borom super yi wala sax ñi nga xam ne tey si tëli si lañuy ñuy daanee seen doole pour def seen liggéey carrément day day métti te genre yi mun na causer euh, lu bëri genre dégâts yi nga xam ne mun na causer lu bëri si loolu nag tamit euh, ñi nga xam ne tey mooy les ferrailleurs ñoom ñoo xam ne dañuy yëngu si wàllu ferraille ak lu ñu mel ñoom euh, dañ si profité moo tax ñu ne la le bonheur le bonheur des autres fait maleur des autres des uns donc loolu firnde la yeneen gis oto bi di jàll mais mënul munul mënul aw si si digg bi carrément parce que li nga xam ne moom mooy. manifestation yi fi amoon démb euh, si démb ak li nga xam ne moom mooy jeudi bi ginnaaw policiers yi ak euh, ndaw ñi ba ñuy jaamaarloo si ay mbir yi nga xam ne ay mbir yu néew la ñu jàpp ne euh, jamono ji nag jot na lool lool lool ñi nga xam ne tey ñoo ŋànk yëf di kilifa yi ñi toog waxtaanee yëf yi si ay kàddu dëgg xam ne njabootu Sénégal ñun ñooy ñàkk ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp ñooy toog dans les bancs publics ñun ñooy toog si kër ga ñooy toog ci tele yi Ah, di waxtaan ñooy toog naan ataaya léegi ñeen tamit ñeneen tamit di dut baaraamu tuuma ñi nga xam ne moom mooy ah, ndaw ñi ñeneen tamit di waxaat leneen yeneen kàddu mooy ñi nga xam ne tey dañu siy rax si biir di si def lu ni mel pour am ci lu yóbbu seen kër yi bu doon alal bi nga xam ne tey doonul alal bu lew leen gis muy ndaw ñi di kilifa yi di ñëpp ñi nga xam ne tey ñoo constitué li nga xam ne moom mooy le couche le sociale si mim réew jot na daal ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy moom mooy nguur un jeune sénégalais du nom de Malick Niang di entrepreneur moo tegoon li nu mel Supdeco bu golf xanaa lu nu mel doy ñu firnde si musiba bi taal sunu réew bii di Sénégal féewaloo jikko yi yàqu-yàqu yi Supdeco bu golf bokk si lieu de commerce yu ñu attaqué la banlieue dakaroise di dund dégâts yi ginnaaw jàmmarloo yu ñu dundoon démb. lii jeune bu góor moo ko liggéey mu mel ni ñoom muy Malick Niang lii dafa ñaaw ñun ñoo dëkk géejawaay bu ñu yàqee géejawaay suñu alal la ñu yàq lii toog ba ay 20 heures 18 heures ah nga ñëw 17 heures ñu saccage fu jaamur xam nga ne lii nga fi gis saccage la vraiment defuñu ko kenn bu buñ jàppaane dañ ko def président defuñu ko président ñun suñu bopp lañ ko def parce que Sipiko bi ñun ñoo ko soxla. sénégalais moo ko liggéey une jeune nag ba un jeune de sénégalais boo xamante ne bu frais nangoo liggéey am jom seen moroom tey ay ñoo xamante ne dañuy ñëw taxawal fii. di buddi di yóbbu di def lu leen neex ñun de suñu population bi ñun ñun ñi démb taxaw bu ñu fi taxawaay ku nar a buddi buñ ne laa nga ne ñu ne la sotti yil parce que sa nawle buñ na gisee ngay jënd ñu ne la bul jënd parce que lii sa nawle moo ko moom dugg nañ dégg naa xale yi tuuti benn xale bu tuuti moo ko dajj bu tuuti moom seen dañ ko tëbal ne ko ubbi ci li ma dégg information bi ma ci am léegi en tout cas dañun mer nañ trop ñun ni mère de famille population sénégalaise vraiment mer nañ lii dafa ñaaw li c'est très mauvais c'est lâche li affaire lâche lâcheterie la parce que kii di liggéey lii dafay liggéey comme ñoom il faut qu'on arrête qu'on arrête ça daan doole ba tol fii bu ñu ko yàqalee si yàqal xoola loolu luy luy fayeeku ci say si ñun la après ak ñu fiy liggéeyee man am naa benn doom boo xamante ne fi lay liggéeyee mu leer na ma ne si la yor soxnaam yor boppam xam nga loolu tamit lu ñaaw la en tout cas daal ñun ñu ngi koy ñaawlu. maa ngi koy naqarlu tout d'abord et je me que am na yu ko jarul. et ça ñoo ko moom suñu alalu réew la lii nii c'est déplorable parce que boo seetee ñun ñëpp la doon jëriñ donc bu ñu xëyee def ko tamit yàqate ko nii ça ne fait pas avancer le pays man lii ma gën a bëgg mooy que ça cesse que ça cesse dégâts yi yàq-yàq yi que sa cesse on est des citoyens on se doit d'être des patriotes yaa ngi comprendre euh, dañu war a protéger alalu askan bi surtout si on a une bonne vision pour le Sénégal avoir une bonne vision pour le Sénégal mënta weesu protéger sa alalu réew tey jii ñu ngi xeex pour que Sonko yéeg bu ñuy xeex si c'est idéal boobu moo leen tax a jóg man je me dis que war nañ gën a mën a xeex aussi protéger waale suñu moomeef parce que moomeef mënta weesu Auchan yii nii ñu fi ubbi c'est pour le Sénégal même si on dit que tubaab yee ko moom Supeco bi ñuy wax nii mais nit ko ñu la ko moom ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom alors boo ñëwee ne da ngay yàqal nit pour que nit yeeg man je me dis que y a une contradiction quelque part solution yi mooy que ñu essayer ñoom ñi ñu diriger daal di jéem a maslaa waxtaan trouver un terrain d'entente waxtaan aussi de manière pacifique woowaat le peuple ñi leen gëm ba arrêté woowaat le peuple pour qu'on trouve une solution durable yaa ngi comprendre euh, ñun ñëpp ay nit lañ gëm nañ catholique bi gëm na dara jullit bi gëm na dara nañu jéem a booloo nekk benn pour un Sénégal meilleur et que aussi qu'on construise un Sénégal de paix on naa a besoin nañ déglu appelu kilifa diine yi waa nguur gi tamit kon dise que diwa nekk derrière ça ou pa ku ci mën dugal loxom et que nga nekk une personne influente dans cette affaire que dugal ci sa loxo pour qu'on aboutisse à une paix durable dans ce pays parce que c'est notre Sénégal bu ñu yàqee suñu Sénégal la ñu yàq bu defaroo tam ñun la defarul li ñuy wax ni naan la situation est dramatique et tout tout tout dëkk bi dafa dëgër mais bu ñu yàq ni day gën a dëgër parce que mine de rien ay nit a fi doon liggéey ay doomu aadama doomu Sénégal ñoo fi doon liggéey donc bu doomu réew bi demee ñafe ba indi liggéey pour ay doomu réewam di leen embauché fii di leen fay weer ay père de famille ay mère de famille nga xëy yàqu ko bousillé ko yàqal ko moom ci boppam ay revenu après que ça va donner des pères de famille au chômage et ça ça ouvre la porte à toutes sortes de choses c'est la même situation fii nga xam ne moom mooy au niveau de Yoff euh, boutique bi nag euh, supermarché bi nag euh, kuku ñu ko moom ay chinois lañ maanaam dañuy jógee fii nga xam ne moom mooy sa continent bu Asie ñëw fi nga xam ne mooy Sénégal installé fi li nga xam ne moom mooy seen business ginnaaw loolu nag gis ngeen yàqu-yàqu yi ak saxaar si bëri si nga xam ne tey mu ngi génn si biir ak lakk-lakk bi rek ak butéel yi nga xam ne tey mu ngi si au niveau de la porte mu doon parmi les dégâts yi nga xam ne euh, jot nañ ko enregistré euh, ci matin bi ginnaaw bu ñu jugee fi nga xam ne mooy gox yu bëri si Ndakaaru HLM Grand Yoff euh, fi nga xam ne tamit moom mooy Géejawaay ci dëkkoo ba ak banque bi nga xam ne moo nekk au niveau de rond-point fii nga xam ne mooy Yoff c'est ça la situation boutique Coucou bi nga xam ne ay suñuy naataangoo ay chinois ñoom ñoo ko moom moom la moo fi am ay yàqu-yàqu gisee sax na nga gis produit yi ça venait la pour la plupart de en Chine mu rek ñu avancé tuuti rek jël euh, li nga xam ne moom mooy quelques images si biir pour vous montrer toute euh, information yi nga xam ne nit ñi jot nañu ko wax ak yàqu-yàqu yi nga xam ne jot na fee am démb si guddi jamono ji lañ gis ay conditions yu xaw a difficile lañ koy defee mais on va essayer de vous nga xam ne mooy l'information rek ak image yi nga xam ne tey mun nañ ko mun nañ leen ko won mu dégg un dégât lu si ay millions yu bëri laata loolu dañuy taa taataagan si micro ki nga xam ne tey moo nekkoon benn parmi les vigiles nga xam ne ñu ngi fi ñu ngi doon fi liggéeyee. ñun ñoo gérer yoon sécurité magasin bi quoi mais incident bi moom. wax dëgg yàlla jaaxal na ñëpp metti na ñëpp ndax lii moom benn kenn mësu ko xalaat waaw mais nag bon ñu ngi ñaan yàlla mu yem fi tamit ndax Sénégal toll na instant bi foo xamante ne nii xel yi dalatul ñëpp a jaaxle waaw ñu ngi ñaan nag képp koo xamante ne maanaam suñu borom dogal na maanaam nga war cee mën dara wala nga mën cee ñaan wala nga mën cee wax muy mu jeex mu yem fi moo gën waaw bon différents produits rek comme Auchan et tout lépp la doon jaay daanaka produit yu bëree bëri bagaasu xale waaw bon pas venant sax am na yu bëri bëri fii lay jóge mais euh, euh, genre boutique genre Auchan la rek waaw presque li Auchan doon jaay lu bëri bëri ñun ñun amoon nañ ko fii quoi xam nga mais gis nga fii ni ko ni ko population bi def lii c'est pas joli lii rafetul waaw lii moom mën na ñàkk fii si suñu réew daal xam nga te tamit ñi ay étranger lañ sax waaw ñoo ko moom xam nga moon nañ ci xam nga mënoon nañ bañ a doxaleen nii ndax ndax doxalin bi rafetul dara rafetul rafetul daal mënu ma estimer exactement ñaata la mais xam naa ne tuutiwul moom xam naa ne tuuti parce que li fi yàqu lépp ak li ñu fi jël bëri na trop ba nga xamante ne nii bon mënuñu estimer carrément exactement euh, nan la toll mais xam naa ne daal métti na moom foofu ba fu métti yem waaw waaw waaw métti na trop naa exactement ay normalement man instant yi ma koy yëg ci ci téléphone vingt deux heures et quelque quoi waaw boobu la incident bi am ci lañ ma ko wax man boobu jotee man man boobu fekk na sama relève bi ñëw na ba ma bàyyi ko fi dem xam nga loolu la demee mais metti na daal grand métti na trop lii moment ah, moom yàlla bu mu amati Sénégal quoi waa parce que ñi ci yàqule bari nañ xam nga aussi ñi ngi jaale ñëpp képp koo xamante ne nii suñu borom dogal na nga euh, am ci mbokk bu wàññeeku ñu ngi la koy jaale. waaw di ko jaale Sénégal yëpp waaw te tamit di ñaan yàlla lii moom yem fi rek. bon solution bi moo doon mooy mooy mooy mooy daal xam naa ne bu fekkee ne euh, euh, euh, mooy comme li ma wax sànq rek bon fi mu toll nii Sénégal kenn nanguwul déglu kenn ndax ñi war a wax wax nañ ñu si bëri tamit ñu ngi continuer di wax waaye bu ñu tàyyi bu ñu bàyyi nañ wax rek ndax xëy na ak boole ceeg ay ñaan yi tamit ñaan yi tamit dina ci am lu solo lool ndax dina mën na tax jàmm dellu si xam nga lépp mën a soppeeku daal waaye lii moom man moom yàgg naa fekkee ay incident ay kii politique mais lii moom mi ngi doog am Sénégal xaw ma nag lu ko waral mais lii moom mi ngi doog am Sénégal ay jàmburu yàlla nga leen di yàqal di di di jël seen alal ah, lii moom daanaka mi ngi soog am Sénégal quoi xam nga man nag mën naa ne bon euh, malfaiteurs yi ci ëpp xam nga sàcc si ñoo profité ci situation bi. xam nga pour am lu ñu yóbbaale affaire yooyu xam naa loolu la rek oui mais lii moom yaakaaruma ne doomu Sénégal yi maanaam maanaam maanaam ñi nga xamante ne ni ay responsable bu ñu def lii quoi. inquiétude tristesse yàqu-yàqu loolu lañ ñemee ko fi nga xam ne moom mooy Ndakaaru ak sa banlieue Pikine Géejawaay jàpp Parcelles ak fi nga xam ne moom lañ terrassé mu doon li nga xam ne moom mooy commune bu Yoff gis ngeen li fi xew gis ngeen image yi. li ñu mën a wax rek mooy li nga xam ne mooy jàmm ji nga xam ne ñëpp ñu ngi koy sàkku mu daal ñëw si suñu gaal kilifa yi ngànk yëf yi daal di waxtaan pencoo réew mi ba li nga xam ne moom lañu bëgg suñu réew muy teranga Sénégal bi ak un peuple un but une foi mu doon suñuy valeur ñu daal di koy retrouver si jàmm ak salaam